le pouvoir central amna ci ci sa diganté ak li autorité soutien bi nga soxlo pour Kaolack ndax ya ngi koy am. mais dafa tel parce que wax dafa mm. parce que. mais depuis ma Néma, néma, wax ko. Mm. ndax 2000 ba légui soutien bi. état bi wara def ci Kaolack. c'est ça la c'est la mission que du na xam nga bi nga yoree yow bi nga yoree di diriger yor maire yi war nga mën a xam bu baax a baax ndax li ngay xaar ci état en terme de soutien yaa ngi wax sànq infrastructure y a les inondations peut-être amoon na problème bi nga xam ne mooy salte bi nga def ci sa liggéey mais est-ce que aujourd'hui am nga ndimbal bu mat sëkk boo xam ne jóge na ci état bi nga ko yoree bien sûr bien sûr am na côté xam nga doomu aadama da ngay wax li am xam nga tey man bu ma nekkee candidat hmm. yeneen candidat yi boo leen fi tegee fii li ñuy wax ne état def fi dara déedéet hmm. SONAGED UCG bu defee dara mais kan la. Mhm. état la kooku dama koy nangu. Mhm. amul benn problème dégg nga Sénélec bien que am na euh, protocole bu mu doon am ak ñoom mooy ñu am objectif liggéey xam nga kee dañoo toog am protocole lii ngay def lii laay def lii lay def mu leer naaj kee protocole la ñuy wut mais gis naa ne mi ngi liggéey Medina bàyyi mi ngi liggéey yeneen endroit yi mi ngi liggéey mais dajul mais li ñu bëggoon mooy ñu toog mu leer. ci hmm. mairie bi ak ñun ñu leer seen leeg ne man danaa leen defal lii yéen ngeen. defal parce que monsieur le monsieur souvent li ngay wax moom moom moo dul leer en quelque sorte soit état dañuy wax ne jàppale na la. am na ay résultat yu probants wala loolu amul. Hmm. mais pas côté bii wala côté gee pour peut-être bañ frustrer état wala bañ a wane ne am na yéen ci seen diggante hmm. benn ñàkk jiboo mais xam nga fa l'objectivité moy lan. moy boné nit baax na nga expliquer lu mu baax. boné bon na nga ne expliquer mu bon. man déng la ñaar am pour des résultats. pour kaolak wala baña a pour des résultats Je lima la wax. état am lu fa def su bu ko bari wul <laughs> hmm. bien sûr na. wa su jëm ci walu yoon. amul amul. mais boudé lu jëm ci walu set. amna. lool rek la la wax. mais loo bëgg nag moom léegi nag yow yaay analyser li ma la wax. <laughs> très bien yow lépp baax na wala lépp bon. waaw mais ci beneen fànn lu jëm ah. ci xam nga Kaolack amoon na aérodrome bu Kanda bi. Ah. Ah. te gàmmu gi am na ñoo xam ne dañuy jógee ca bitim réew. mais dañuy obligé jaar aéroport Diass. Hmm. wàcc doog a jël yoon bi. Hmm. Euh, yow en tant que maire yan jéegu nga dox même bu laajee jumelage parce que Saint-Louis ñoom dem nañ ba. dekkalaat seen aérodrome ngir avion dafa fa ñëw. Hmm. loo dox ci jéego ba avion war a mun a teer Kaolack rawatina a toujours un aéroport international. waaw dañ ko yeesalaat xëy na trafic bi demul dematul woon non non am dafa am réglementation internationale. Saint-Louis a toujours aéroport international. Hmm. Cap Skirring dafa mas a nekk aéroport international. Euh, Ziguinchor dafa nekk. Kaolack musul nekk aéroport international bul imaginer mukk Kaolack aujourd'hui mën nañ ko defaraat ba mu nekk aéroport international kooku liggéey bu mag la te gis nga ne dañ ko dëkkee ba sës ko état bi mi ngi nekk ci benn programme pour defaraat ko mais aéroport militaire la mais mi ngi xalaat pour defaraat beneen aéroport international mais pour ñun pour ñun suñ gis-gis. Mm. de vision xam nga nit doo fi nekk am naa am na su état bi pare woon autoroute bi mais je pense que wàcc aéroport Dakar dem Kaolack moo gën a yomb dikk Dakar. Mm-hmm. on n'a pas besoin deuxième aéroport. très ah, bu leer war na mën a nekk parce que. waaw mais d' accord xam nga. attraction bi muy am ci période gàmmu. laa neex nga def xoolal entre Ziguinchor. Mm-hmm. et Cap Skirring 70 kilomètres la parce que président Wade ñëw na teer fa ak avion ba muy euh, inauguré Sodefitex ba. waaw mais xam nga aéroport aérodrome. Mm-hmm. mën nañ fa teer ak avion. bu mag bu ko attanee ak avion privé mm. aéroport classement international mm. avion mën nawe passager départ Nigeria ñu wacc ko koku dafa am ay réglementation non non dama bëggoon wax aéroport bo xamné ku ñëw ba Dakar wala jass war nga mën départ ci avion comme ni ñi défé noonu non man la la wax man Serigne Mboup yow jarul lako man Serigne Mboup même bu ma yoroon Sénégal mm. xam nga lu may def fexe ba ko wàcc jas mën a jël train une de temps yaa ngi kaw la. <laughs> waaw ba tey loolu laa gën a loolu laa gën wut ci di leen defal aéroport. ci wàllu wut Sénégal boobu. ci wàllu route tamit. Mhm. Euh, autoroute autoroute bi bu pare mais boo defee une heure de temps dem kaw la. Mhm. waaw. une heure de léegi nag aérodrome. kii peut le plus moom. non attends mais xam nga l'argent public tamit daf ko war a yaxanal. Mhm. doo nekk naan. Euh, doo nekk naan lii la. Ah, c'est-à-dire aérodrome daal ñu am aéroport boo xam ah. boo ma nee tey xam nga nit day am priorité. Mm-hmm. Mm-hmm. aéroport yëfi la. Mm-hmm. dégg nga non danga may wax priorité. Ah, <laughs> nga xam nga wax day leer. xam nga nit dafa am priorité soo ma nee. Euh. li ëpp solo loo xam ne bu ko defaree mu mën a indi ay liggéeykat. Euh. nee ma port ba. nee ma train bi. loolu non non loolu non non loolu loolu loolu du suñ compétence mënuñ ko sax mënuñ ko. suñ doon dajale li ñu am lépp fekk 30 ans. très bien maire Kaolack mënu ko tabax. alors mooy discours de vérité bii ngay të. yombul ci kuy sàkku réew mi. wala kuy dugg ci politique. mais xam nga ñun li ñuy xam xam nga ñun li ñuy yare. alxuraan mooy na ngay wax li ngay def loo man nga def loo mënul nga ne mënuma loo de la askan bi soxla ah, man de loolu la bëgg dëppoowul ak système bi nag système non non système bi amul problème ah, système bi loolu la système bi système bi dañ lay ñëw président dig la dig la dig la dig nit ñi neel nit ñi ba nga kii boo ñëwee doo gis dara waaw moo tax système moo tamit nit ñi di leen nax rek toujours ñu woote mhm. dajaloo dajaloo ba na ñoo fi ëpp mbooloo mhm. euh, kii bi résultat bi génn <laughs> kii espérer que man mën naa gagné la

gis nañ nag ci biir Euh, Afrique am ñoo xam ay secteur privé comme Patrice Talon au Bénin waaye aussi nitu économie comme Yayi Boni au Bénin bi ñu au pouvoir après nag nit ñi dañoo am euh, kii nii déception ci seen gestion parce que jàppoon nañ ne ak milieu yi ñu jóge bu ñu ñëwee comme comme gi day gën a naat a am doole yow mbaa du la du la may ma tuuti ma ma tontu sama kii après dinaa la ñëw damay migré dem ci personnel mhm. personnel bi ma ma dem. allez-y voilà personnel bi il faut ma expliquer leen li ci am. Mhm. ñun personnel bi amuñ woon problème ak ñoom c'est vrai que dafa am lu ñuy tuddee grève général boo xam ne nii c'est décrété par leur syndicat national. Mhm. bi mu amee mu diire lu yàgg. ma woo leen leen waxtaan ne leen état civil bi dafa am problème. Hmm. ay xale tegam maire man maire damay toog sama buntu kër wala comme neex nga fëgg sama kër dama toog ba mu yàgg groupe étudiant yu ñëw dajaloo dañ la bëgg a gis ma wàcc ñun dañu ñu ñu xaw ma jooy bi ñor na leen moom déet wala ñuy jooy ñun dañoo bëgg ay kayit hmm. dañoo war a def examen damay war a def ma dem wax ak ñoom ne leen dimbale ma état civil bi ngeen jéem ko defar. Hmm. après nanguwul léegi man maire. première parce que man ma lire teg si man maay officier d'état civil. Mm-hmm. ku ko am man maa la ko joxe. mais ma ne dara bala nga ko joxe da koy jàng. ma dem ñu jàngal ma ko ba ma comprendre. Mm-hmm. ma ñëw former ay nit yeneen i nit. ñu ubbi état civil bi commencé liggéey c'est là le problème bi yokk mm-hmm. ñu ne nag mu am ay mais ñoom dañ jàppoon ne c'est une affaire politique et que da a changer ñi nga xamante ne maire ba fa nekk. non mënuma leen a changer xam nga un employé dix mois bu am contrat neexut a changer. neexut a changé man ko changé suba bu la neexee suba mën nga def lettre def ko la neex préfet mën na ko bañ a approuvé mu dem tribunal dañ lay condamné mën naa am ba lañ ko exécuté hmm. man du bi ñuy yar moom moo tax ñun même biñ parce que dafa grève dafa liggéey suul parce que biñ koy dàq boobu grève bi sax commencé wul yoon dañ ko réintégré waat amuñ ci problème ñun def dara ñun ni ñu ni ñu ko defee baaxul parce que liggéey suul rek du du motif waaw mais garaawul xoolal

loolu moom am foofu hmm. li vérifier encore vérifier encore essayer d'avoir plus d'informations. Mais, mais ce ne veut pas dire que hmm. Patrice Talon réussir ne réussir pas wax le secteur privé hmm. non du secteur privé affaire du affaire du secteur privé de enseignant de producteur affaire nit la du affaire nit la xool leen li ma leen di wax ak man fi ma jaar ndax fi ma jaar fa def wala wala amna courage taxaw wax len li may xalaat sans may nek di lire discours lolou la la meuna wax. Mhm. mais lolou daal la ci meuna wax man Serigne Mboup xam. Mhm. Sénégal la xam bene lajna du lajna sax maa ngi fi maa ngi documenté wu ngi xam amna les chambres de commerce sont partout. Mhm. sont partout euh, dans le monde. et c'est important loolu la c'est c'est vrai que amna ben problème euh, bo xamné secteur privé amna ko ci Sénégal. da ngeen divisé wu de waaw problème numéro un oui. loolu numéro un. Hmm. problème numéro un xam nga tey da ngay ñu état bi secteur privé je suis entièrement d' accord état le secteur privé ndax lu tax ko ci état mu ne journalistes ngi ci ci débat hmm. secteur privé mais secteur privé amul fenn fu ñu ay da ñu te dimbale secteur privé mooy jox ko marché doo du crédit un secteur privé ki naan nañu yox xaalis loolu du secteur privé mhm. secteur privé mën nga créer sa entreprise ci un dollar mais bu ñu la joxee marché un milliard bu subaa nga riche. Mhm. un milliard bi mais xam nga bu ñuy wax. un milliard bi bu ñuy bu ñuy wax àndu leen mooy maanaam ñii. Euh, li nga xam ne mooy jàmbat bi war a nekk jàmbatu commun pour ñëpp duñu ko jàmbat chacun roule pour ses propres intérêts su fekkee ne un état wala un président de la République dafay consulter kenn ki ci nekk di fexe moom muy am marché sans pour autant l'intérêt commun mu jël ko en compte est-ce que di ngeen am solution. pour loolu bàyyil ma damal la yeex bi wax nañ ko fii ba tàyyi bàyyil ma damal la yeex bi wax nañ wax nañ ko ba tàyyi bëgguma ci woon wax ba mel hmm. xam nga tey dafa am niñ ne fédération sénégalaise de football. Hmm. moo représente l'ensemble des footballeurs nga bayiko fi dem di wax ak ASC loolu mooy suñu problème tey ce sont les chambres de commerce mm-hmm. qui représentent le secteur privé dans ci contexte biñ bind ci loi te loolu Mo am ci àdduna oui l'état nak ñun dañu am problème depuis 2000 euh, depuis depuis 2010 mm-hmm. les ministères de commerce ci fi la n'arrivent pas à organiser des élections ndax ay pression yoo xam ne nii dañ ci nekk ñoo xam ne nii ba avant may juddu sax ñu ngi chambre de commerce di dundee alalu chambre de commerce. surtout chambre de commerce Dakar di ko dundee parce que yow amoon métier yow chambre de commerce ci ngay dund ci alal bi imaginer nga jël benn chambre boo xam ne nii budget bi mën na deux milliards. Hmm. yow nga bëgg a jël un milliard huit cent yi mu nekk fonctionnement kooku amul njëriñ. amul benn njëriñ parce que on n'a pas créé une chambre de commerce pour payer mën nga ne police on a fait un police pour payer pour faire la sécurité mën nañ def nanga mais loo xam ne dafa war produire. nga jël ko di jël ay salaire budget ci budget état ci ay ci ay yokk budget état laay wax parce que fini ñuy jëlee xaalis bi benn bi état bi moko koy jox benn bi ma jox lo simple simple ki xawma yenen chambre. Mhm. chambre de commerce de Dakar budget mi ngi nek